soo bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39 Birima. waaw ah, naam yaay. bëggoon naa ñu waxtaanaat. Mhm. ndax jamono ji si ginnaaw. Mhm. am na lu ñu waxtaane woon te boobu ba maa ngi si dégg te waxuma ci dara mhm. ndax jamono léegi jii lépp lu ci waay def war naa gaaw te jamono jii ñi fi ñu toll toll na foo denc soxna. Hmm. te ba ma la waxee dag na ma njaay baal mu wër. Hmm. ndax ba nga dalee wër ba léegi. Hmm. gis nga koo bëgganteel wala déet. nijaay. Mhm. maa ngi reflé see kàddu lool. li la wax ni la keroog ba ma la waxee ni la maa ngi wër. Mhm. boo ba tey. Mhm. dañu ma ci di wër ku nekk sama soxna waaye nag xëy na. dajagum ak moom. ñàkkul nag ni bis dana ñëw. dinaa daje ki ma war denc soxna. te su boobaa. dinaa yooyu incha allahu rabbi ah nit de kenn du ko tànnal soxna waaye nit dinañ ko tànnal soxna mu gën ci moom lool ndax. nit kenn wër koy xañ bëgg-bëggam mhm. moo tax jamono ci ginnaaw ba nga waxee mën a demal wër te ba ma la koy wax tamit saam xel di jógatoon si sagar mii ndax sagar sa jabar yoonu yàlla boo ko dencee sa jabar yoonu yàlla la soo ko dencut sa jabar yoonu yàlla te su ma sañoon ah li ma gënal loo xam si de lu sedd samay xol lu sedd sama xol lay doon mooy sagar mii ma jël ko jël ko jox la ko mu doon sa soxna loolu de boo ko defee moom desaleetu ma dara desaleetu ma dara waaye danga ma du desalati dara si àdduna ndax yéene naa la ko lool mm-hmm. waaw. nijaay mm-hmm. lama la waxoon démb mm-hmm. ba tey ci laa nekk muy bugg ma nga wax ma benn yoon ma ci réeroo ak yow ba moo tax ba nee ma dama wër ba tey maa ngi wër te sagar mi it liñ jox moo ci am muy sama doomu nijaay la te sama soxna joonu yàlla la waaye daf fekk ni nijaay sagar maa moom ñoo bokk yoroonoo ci kër gi man damaa dem sax ba xàmmeetuma ko ak rek bu jigéen bi ma bokkal ndey ak baay moo tax daal su ma nijaay mhm. euh, dëgg ni sama jawar la mhm. waaye ma xooli feneen rek mm-hmm. ndax sëy mbokk dafa am nu ma dégg ñu ko ci wax te loolu laa bañ mu dal ah, na leen laay bañ rek li léegi dal la sagu loolu laay bañ te xam naa ne sagar mii bañu la yow it te ngaa ñëw ma ma fas buum gi rek muy benn rek dina ma gënal de nijaay ah ndax démb kat am na wax ju am na wax yoo xam maa maa maa ngi ko déggee ñaar seen diggante ah maa ngi leen doon bàyyi xel de. nijaay te yéen ñaar yéen ñaar doo nga yéen nekk ci kër gi yéen ay ànd dem tool ya bu ma demee tool bi léeg-léeg yéen laa fi bàyyi ah man de lii moo ma gënal bu mënee am. dëgg la nijaay waaye sama semaine nag. Mhm. nga bàyyi rek ma xalaat ci tuuti. dinaa ci waxtaan ak yow incha allah. baax na. baax na baax na xam naa daal ba amee moom dina ma gën a neexati daal moom. yàlla baax na yàlla baax na jërëjëf yàlla baax na. ok baax na ana ana kii nag yi wëgg nga leen. Eh, wëgg naa leen bu yàgg. ah man de fi mu toll faa dugg ndax daanaka dañ maa minute. ay ok ni yaa ne ko dugg yàlla. léegi moom da ngaa seex. <laughs> bari ci démb dama la kaa fàtte wax waaye buntu balaa yoonu man. Hmm. damaa dugg di ko may ndox rek nangu ndaw eh, engagé ma. man moo tax bi ñëwee fekk naa bi daa jéego. <laughs> boobu man de. fekk naa mu daa jéego ba wéeru foofu de. man a de man a na yow daal. ah xoolal li gën a rafet rek baax na incha allah yéene naa ko daal. baax na baax na dégg naa la. baax na naa ci xalaat baax incha allah rabbi. ana sagar moom. sagar ne woon de. moom da day dox fii. Hmm. yàgg lool na waaye ñaaña jaral na ma te di sàkku njégal ci kàddu yi nga xamante ne génne naa ko sama làmmiñ bi ngir jubal ko ci yow ndaxte dëgg la nekkuma woon ci dëgg te ñaaña xamal na ma ne it sekkoo dara ba tax mu mere ma ci te xam nga ne bëgguma mukk lu metti ñaaña moo waral sama tànk yi ma ñëw di la jékkul. Ndeye man de dama am si yow ñeewante lool ndax ba ma ne parental ñu jëlee ma saa ñembaar indi fi jox ma sa baay lépp lu nekk si man moo ko def si man kon boobu bugguma sax moom lu koy naqari na yow mii doomam jéggal naa la ci xol bu sedd guy kon ñaare dalaa mere ndax man. waaw waaw. waxtaanal ak moom rek. mere na ma lool am naa mbégte nag. jéggal gi ma jéggal te dinaa waxtaan ak moom bu soobee yàlla dina dellusi ci si yow ngeen waxtaan ñu ànd di kaf di foo di ree kooku du walloo <laughs> Nooru. daa mel yaa ngi si mboq mi de. waaw gis nga tey damaa ñëwoon seeti sama toolu mboq bi. waaw waaw waaw waaw. Mhm. man mii de si waaru laa jógee. Ah. waaye daal. ah baax sa tool minute comme sama. waaw alhamdulilah man nga xaw a sàggan ba gis ñax mi. waaw waaye sant rek sant yàlla. sant rek ndax dugub bi wax dëgg yàlla yaakaaru na trop. lii moom waaw gis nga mboq bi waaw waaw. waaw ah sant rek sant rek waaw bëgg kii ba ker gi sedd. bu defee ma ñëw àggale di si waaru. waaw amul amul toogaay nag. comme misaal soxla woon naa la. Hmm. xam naa ni woote bi yàlla gën bu nit ah alhamdulilah yow de jàmm rek nga ma daan doyee. Euh, fan yee jàll. Mhm. dem naa ci code. code code mel na rek. kon bàyyi goo code ba ah, léegi mënu ma koo bàyyi. ginnaaw suñu lëwtoo yàgg moom. Mhm. mujj naa ko wax sama mbëggeel ci moom. Mhm. fan yee jàll daal waxtaan ci lu yaatoo yaatoo yaatu. Ah, léegi nag moom lu mu la wax. Ah, moom de nee na ma naa ko may mu xalaat ba fan yii di ñëw. ndax daa mel ne ku nekk si naqar. wax na wax na dëgg nooru. maanaam waajur dafa sori lool ci doom mhm. rawatina mu nekkoon benn ak ndeyam mhm. kon yaayam du gaaw jóg ci xelam mhm. moo tax mu wax la loolu waaye mu waxu dara ci Latir waaw latiir nag moom waxuma ci dara man it waxuma ko ci dara ah kon alhamdulilah man daal leen rek laay bañ mu yàq seen diggante ak Latir fexeel ba yow ak Latir daal bu la réeroo ci dara lu ci Latir war a xam rek comme ni nga ñëw ci man wax ma fexeel wala teel xamee ko noonu bu ko defee rek seen diggante réeroo du ci am. wax nga dëgg wàllu. Mhm. yow moom sa xol moo rafet da ngay defar. Mhm. waaye maa ngi lay ñaan daal. Mhm. soo tëddee nga nelaw ba yandoor. ndax latiir maa ngi moom du ñu ñaar waaye benn lañ. wul la ci ndax yaa koy gis. incha allah kon li nga wax ni boo ne dëgg la rek dama koy. firndeel incha allah dinañ sàmmante moom. xanaa dañuy far yegg kër. waaw noonu demaale benn yoon ay tool yi. sant yàlla rek. sant rek fi mu toll a neex moom day. soxna lu doonoon say tànk. xanaa jaaxle rek. yaakaar magum dëkk. ak yaasin pend jamono yi bëgguñu lu may ray dem naa ba jaaxle lool te yow yaay yaakaaru dëkk bi. Mm-hmm. moo tax ma ne naa ñëw ci yow nga jàppale ma ci looman ndax boo ma ci jàppalewut dina metti lool ndax boroomu njaboot laa. soxna Buri. naam yaakaar. dëkk bi ñu nekk magum dëkk moo ko yilif xam nga luy mbir mi. Mm. mooy def li neex magum dëkk. ak doomam jooju di Yacine Penda lu ko mooy du ma wax ak ñoom benn yoon yow mii laay waxal gis nga boo deful li neex magum dëkk dinañu bàyyi bàyyi fekk rey la yow mii di soxna man mi yaakaar waaw buri loolu dina metti de waxtaan na neex boroom kër te dëkk bii ñu nekk magum dëkk mooy ki ko yilif te sama jotaay bii nag dara waralu ko lu dul moomee lu magum dëkk. Ah, ne nii de moom jaaxle naa loolu yaakaar te xaw ma nu may def moo tax ma ñëw fii. buri naam yaakaar. fexee la wéy ci li neex magum dëkk ndax loolu rek moo lay muccal. waa baax na maa ngi yegg ci kër ga. nuyul ma fekkee. salaamaaleykum. maalekum salaam. yaa seen pend suma kër. lii mbaa jàmm. xam nga du jàmm. dégg naa dund bi leen magum dëkk di laaj. dangeen am lu ngeen ciy jiixi jaax. déedéet yaa seen pend amuñu dara luñ ciy jiixi jaax. baa xam nga ni njóobeen ak tund wi lépp li ko wër sama baat rek la ñuy déglu lépp lu ma wax moom la ñuy def. Yacine Penda amuñ dara luñ ciy jeexee jaax xanaa xamoo yéenay borom dëkk bi. leen da lay xamal gis nga dund bi bu ngeen ko joxewul